a dellusiwaat nañ ci tafsir bi biidnillah ba tey noo ngi ci suuratu yaasin war a tàmbalee ci bopp aaya cinquante neuf بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامتاذوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتجعل أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين الحمد لله رب العالمين نانجي بايكو وان في برم borom وتبارك دينو wa tabaarak dinu atte bi du yàgg du jafe lan moo tax bis penc ci ñaari xeet rek ñoo fa nekk moo tax it ñaari kër ñoo fa ne é ñaari xeet yi fa nekk mooy jullit ak yëfër ñaari kër yi fa nekk موي أجنا أك سفرة فريق في الجنة وفريق في السعير سنتخوينك برم بدنا وامتاز اليوم جن لين تاي اليوم يعني يوم القيامه yàlla ne génn leen ñu ne ñan ñooy génn mu ne ayyuhal mujrimun yéen ñi nga xam ni saay-saay ngeen daawu leen jaamu yàlla toppatoowu leen woon islaam gëmu woon digalu borom bi jëfeewu woon ay ndigalam yéen daal Sen bakkan rek ngeen toppoon lu seen bakkan bëgg ngeen nekk ca lépp luy caaxaan ngeen sax ca moo xam góor la wala jigéen kon nag saay saay su jigéen si nañu génn waaye saay saay su góor siit nañu génn looloo tax mu ne wamtaadul yawma ayyuhal mujrimun génn leen bésub tey bi yéen ñi nga xam ni ay saay-saay ngeen yoo xam ni da ngeen a génn ak topp bu ñuy génn nag ci la borom bi taala wa di yeddee doomu aadama yi su yàlla yedd nit ñi ñépp ñooy taxaw di ko déglu muy yeraanga goo xam ni ñépp ay rëccu ñii dem àjjana ñii dem safara ñépp te lañuy fàttaliku borom bi ne alam ahad moo ndax kóllëre wu ma wonte woo nekk yéen ilaykum ci yéen ay alam uusikum wa uballighukum an tariqi rusul borom bi danaan moo ndax dénkuma woon ngeen topp yonent yi moo ndax woon ngeen jaamuma moo ndax dénkuma leen woon ngeen jëfee samay ndigal fas yéene bàyyi samay tere alam ahad ilaykum yaraanga gi lan moo tax ñépp di ko déglu mooy kenn tardewul lan moo tax seytaane ñëw na njabootam ñëw na jinne yi ñëw nañu nit ñi ñëw nañu ñi baax ba mel ni yonent yi ñëw nañu ña ca topp ca mbaax ñëw nañ nitu yàlla yi saalixuuna yi ñëw nañu waaye taalixuuna yi te mooy saay-saay yi ñoom it ñëw nañ su ko defee su borom bi di wax di joxe kàddu yooyee ñépp danañ ko dégg waaye kenn du mën a teg ak tontu moo tax mu ne alam a ahad moo ndax ma leen woon moo ndax kóllëre wonte wu ma yéen ak yéen ilaykum ci yéen yaa bani aadam ay yéen doomu aadama yi moo ndax waxuma leen woon ngeen topp yàlla topp yonent yi waay waay be allah taabudu bu leen jaamu a sheytaana sheytaan waxoon naa leen bu leen jaamu sheytaan nit ñi nag li ëpp ci mbindeef yi dañooy jaamu seytaane ñii alal moo tax ñu jaamu seytaane ñii nguur moo tax ñuy jaamu seytaane bakkan moo tax ñuy jaamu seytaane topp ay ndigalam bàyyi ay tereem su yàlla diglee ñu bàyyi su yonent bi dénkaanee ñu bàyyi su yàlla teree ñu jëfee su yonent bi teree ñu jëfee loolu fa muy mujj mooy bu ñépp taxawee yonent yi naan nafsi nafsi borom bi nag daa di yedd doomu aadama yi ñun ñépp lay yedd ne ñu allaa taabudu cheytaan ay laa tatiicuuhu laa tutiicuuhu fi maasiyati waay waay bu leen jaamu cheytaane ba di ko topp te di ma weddi loolu moo tax jamono yi dangay gis ñoo xam ne ay jaami seytaane lañu tiituñ ci ragaluñ ci ndax pour ñoom allaaxira amul pour ñoom bés ci amul pour ñoom topp iblis moo leen gënam borom bi nag ne alam ahad ilaykum ya bani adam moo ndax dénkuma leen woon kóllëre wontoo nag yéen yéen doomu aadama yi ne leen allah taabudu cheytaan ne leen waay waay bu len jaamu shaytan ne nag wa an ibuduni na ngeen ma jaamu bàyyi leen cheytaane te ngeen jaamuma shaytané ay naxam dafa bari lool ñii da leen a nax ci alal ñii ci jigéen ñii ci bakkan ñii ci aada ñii ci cosaan ñii ci diine ñi mu alak ci diine nag ñoom ñoo gën a alku lan moo tax ñoom bu ñuy dem mënuñoo ñàkk a yóbbaale ndax nit ñi dañuy am ci ñoom yaakaar topp leen ci wàllu diine yaakaar leen ci wàllu diine te fekk ay diine nekku fa ñu waxee ba wax seeni maam rekk la ñuy wax seeni maam mataar la ñuy wax li seen maam def li seen baay def donte li seen maam def ak seen baay daawuteeg li yonent bi jàngale ñoom daal da ngay dégg ñu naan topp leen mag ñi topp leen li maam yi digle woon topp leen yaay topp leen baay moo tax borom bi ne wa an ibuduuni waxoon naa leen ne na ma jaamu man rekk kott dong wax jooju nag borom bi ne haada lii ndénkaane bii yoon bii siraatun aw yoon la mustaqimin bu ne coow kon borom bi ne lii waxoon na leen ko ne leen na ngeen ma jaamu ndax seytaane seen noon la kon alam ahad ilaykum xanaa kóllëre wuma ma wonte woon ak yéen te kóllëre ga moy alastu bi rabbikum te yéena ma tontu won qalu bala legi nak ya bani adam yéen doomu aadama ma wax len len alla ta'budu taabudu cheytaan bu len jamu shaytan ndax innahu nak shaytan day aduwun non la mubiinun bu bir lakum ñel len borom bi ne ma tagal len ci ne wa an ibuduun lu len na ngeen ma jaamu jaamu yàlla soo ciy wootee bu yeboo rekk nga xam ni nattu ñëw na say bakkan sa bakkan xaj na ci sa dund xaj na ci nit ñi noonoo la giiru dund xaj na ci nit ñi li ñuy bëgg bëgguñu ku leen di waxal diine kese kese kese de ñoom daal li ñu bëgg ki leen di waxal diiney maam diiney maam mataar waaye wax neen lu yonent bi wax rek yem ca sallallahu alayhi wa nit ñi bugguñ ko moo tax télé yi bu ñuy invité it ku ñu invité duñ la waxloo ci islaam li ñu lay waxloo rek mooy mag ñi dégg sëriñ diw nu meloon sëriñ diw fan la demoon sëriñ diw lañ la defoon dañ cee jublu nag yëkkati seeni kilifa waaye xamuñ ne loola la muy yàq moo gën a bari moo tax jotaay yooyu ñaar ñii doo leen ci gis doo gis mukk ci jotaayu koor yi ñuy organiser ci télé yi doo gis ñu invité ci ahlu sunna bu bir ni kii ahlu sunna la gisaguma ko de te yaakaaruma ne danaa ko gis lan moo tax ñi yore plateau bi di invité ay musique kat lañ ay tëggkat lañ ay fecckat lañ ay animateur lañ ñooña su fekkee ñoo lay invité du ñu bëgg nga wax ci lu bon li ñu nekkee du ñu ko nangu moom daal léeg-léeg ñu laaj la ci kër baay maam Matar wala ñu laaj la ci kër Mademba waaye yonent bi lan la waxoon moo xam ci koor ak lu dul koor loolu doo ko dégg kon woo ñu mel noonu du yomb benn waay démb wax na ko mu ne lan moo tax yow ak docteur Ahmad Lo ak Mor Kebe duñ leen invité ci grand plateau yi ak quartier général yeeg yu mel noonu man ko ah, ñee de xaw ma lu ñuy tontu waaye man li may tontu mooy loolu moom bu leen ko xaar bu leen xaar mukk mukk mukk ñu invité la ci benn plateau ci plateau télé yi ndax kenn ku nekk nag na nga mel gaay dañ koy xam de gaay ay psychologue lañ dañuy xool kan moo mën a ñëw correspondre ak seeni bëgg-bëgg su ko defee nag ñu naan oustaz bi moo am bës oustaz bi dafa comprendre oustaz bi dafa méngug jamono loolu saa boo amee nekkatul tagg xas la saa boo demee nekk borom xam-xam ñu naan la da ngaa méngug jamono musiba am na yow waroo méngug jamono yow borom xam-xam bi danga war a wax li yàlla wax li yonent bi wax te yem ca ndax loolu la borom bi ne haada siraatun mustaqim lii mooy yoon wi ne caw bu la animateur invité ci ab télé ñuy waxtaan ci wàllu diine te mu leer la ne même moom ci koor gi da doon musique sànq dafa doon teg ay kasetu musique di ko commentaire di ci tëb di ko fecc su la laajee ba pare ne ko maa ngi lay dénk moytu li nga nekkee ndax li nga nekkee nii kenn du ko def ci koor ak lu dul koor borom bi taala wa tabaarak nee na man lam yadaa qawla zuur wala amali bi fa laysa lillahi xaaja fi an yadaa taamahu wa sharaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku bàyyiwul wax caaxaan ku bàyyiwul jëf caaxaan ndax musique du caaxaan ndax taasu du caaxaan ndax fecc du caaxaan yooyu ki koy def invité la di la wax ci loo ci diine nee ko diine yow la njëkk waxal yow mi njëkk a invité di wax nee na nga ragal yàlla nga tuub animateur yu mag dee nañ musicien yu mag dee nañ ñi baax dee nañ ñi bon dee nañ li nga nekk di ko liggéey di ci am xaalis yaa nga ci am xaalis de waaye nag sa boroom gërëmu ko yonent bi gërëmu ko dëgg-dëgg islaam gërëmu ko te sëriñ yi ngay bàkkoo kenn kenn ci ñoom gërëmu ko ci kon tuubal loolu nag bu ñu la invité nga nar a wax borom loolu mooy yow sa invitation du sotti kon yow yemal fa nga yem di wax yàlla nee na yàlla mooy jottali yow moom moo jottali wa ma alayka illal dara warul la lu dul nga jottali ñi koy dégg donte te internet bi nga yem donte ci réseaux sociaux yi nga yem bi idnillah boo jaaree fi yàlla bëgg lay yëkkati nit yàlla la yàlla lay yëkkati insha allah dana dem ba ñoom caaxaankat yooyu danañ la soxla waaye dañ dul ñeme lan moo tax du ñu ñeme dañuy xam ne ah kii kat nekkul ku ñuy manipuler ci ay caaxaan kii boo ko woowee léegi posé ko question dalay tontu loo xamante ni mooy dëgg te bu boobaa réew mi yëngu réew mi rëj rëji moo tax borom bi ne alam ahad ilaykum ya bani aadama alla tabudu taabudu innahu lakum aduwun mubin mu ne wa an ibuduni borom bi ne na ngeen ma jaamu haada wax ji yoon wii siraatun mooy yoon wa mustaqim bu ne coowu coowu te mooy wax nit ñi dëgg toppulee leen yàlla ñu jaamu ko def la leen borom bi sant borom bi nag ne la ma leen waxoon tey naka mu seytaan ngi nii seytaanee ngi nii be walaqad adalla moom seytaane day réeral na minkum ci yéen jibillan mbooloo katiiran mu bare bare bare borom bi ne woon wax naa leen bu leen jaamu seytaane na ngeen ma jaamu seytaane nag moom réeral na mbooloo mu bari ñii ñëw jaamu laat ñii ñëw jaamu uzza ñii nekk jaami manaata ñële nekk jaami hubal la ñii nekk ay yahud di jaamu xërëm ñee nekk nasaara di jaamu salib ñeneen nekk ñuy jaamu bakkan ñii di jaamu seen maam moom daal diine kese kese ñoru leen moo tax seytaane réeral nañu bare bare bare bare wala qad adalla ca dëgg-dëgg seytaane réeral na jibillan mbooloo katiiran bu bëree bari minkum ci yéen allahu akbar borom bi de moo nu ko wax nee seytaane réeral nañu baree bari afalam takunu lu teewoon ngeen nekk taaqiluun di am xel lu leen teewoon a am xel lu leen teewoon a ànd ak seen xalaat lu leen teewoon ngeen xam ni ndigalal yàlla dañu koy jëfee dañu koy topp kon walaqad adalla minkum jibillan kasira afalam takunu taaqiluun lu teewoon ngeen xelu waaye seytaane nax leen ci bëgg-bëggam ci alal ci jigéen ci góor ci caaxaan ah léegi nag mu ngoog kon nag wax naa leen la ma leen di wax iblis a ngi taxaw sëggul doq nit ñaa ngi ni xënét siggi jàq lii lépp borom baa ngi koy wax ñu di ko dégg ñun ñépp di ko recevoir te mënuñ ci dara dara dara léegi nag borom bi tekki nañu haadihi lee ngeen seen malaaka yi di ko xëcc di ko diri jahannamu mooy jahannam jahannama ngee de yéen yëfër yi yéen ñi weddi woon ah jahannama ngi ne dañ leen ko doon waxal ngeen di bañ dañ leen doon waxal li yàlla bëgg ngeen di bañ ñu leen di waxal li yàlla bañ ngeen di bañ ñu leen di waxal ni safara day lakk ngeen di bañ tey nag mi ngi nii haadihi lii ngeen seen nii jahannamu mooy jahannam gis ngeen ko de ëllëti jahannam ba nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tuuaduuna di dig leen ko jahannama bi ñu leen digoon waxoon leen ni mi ngi nii di ñëw tey ñëw na gis ngeen ko lan moo fi des jàqoo jaaxle tiit yal na yàlla jégal ñu allahuma arhamna yowma al ardi aleyk bis bu nuy dekki di taxaw borom bi di wax kàddu yi yal na fekk jéggal nanu sunuy bàkkaar yal na nu yàlla boole ci ñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ramm yal na ñu ànd ak nabiyin siddiqin shuhada ak saalihin wa xasuna ulaayka rafiqoo yàlla nañu yàlla may ñu ànd ak ñun bu ñu demee ba yowmal xiyaam ñu naan la teewoon ngaa am xel kon li muy tekk ci àdduna amoo woon xel bu ñu demee ba yowmal xiyaam ñu naan la waxoon naa la lu tee nga jaamu ma kon ba nga nekkee ci àdduna daawoo jaamu yàlla léegi nag haadihi lii day jahannamu mooy jahannam allati ba nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tuwaduuna dee fi dexal leen ko léegi nag ñi war a dugg ña ñu waxoon ne wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun saay-saay si yépp dajaloo nañ ñu gurgur leen ñu nga futteeku góor ak jigéen def yaramu neen commencé nag xool département jahannama yi département boo xamante ni mushrikuuna yi rek ñoo fay dugg bokkaalekat yi am na département boo xam ni góor jigéen yi rek ñoo fay dugg waaye département bu fa yées mooy bu munaafiquun yi ñoom fi darkil asfali minan naar am na département boo xamante ni caaxaankat yi fokat yi mandikat yi ñoo fay jëm am na département boo xamante ni moom fuur la boo xamante ni comme ni ñuy lakkee yàpp noonu la fa nit ñi mel mooy département bi nga xam ni fa la njaalookat yi nekk ñoom ak góor jigéen ñi njaalookat ya daan joxe seen bopp ci lu yàlla xaraamal moo xam góor ak góor wala jigéen ak jigéen wala jigéen ak góor wala góor ak jigéen ñoom dañ leen di dugal ci lu mel ni fuur bu ñu leen dugalee foofu seen yaram ya di miche wi di lakk deret ja ak ndox ma di siit noonu muy siitee ci suuf lay dajaloo daldi nekkaat foofu benn dex mooy dexu dëttu wànjar dëttu wànjar mooy deret boo xam ni dafa ànd ak dëtt ànd ak ndox ci suufu ma lay nekk waa jahannama bu ñu maree naan ñaan ndox moom lañ leen di dox yonente bi ñu ne ko ndox moomu foofu noonu dex boobu nan la tudd yonente bi nee ne tiinatul xabal noonu la tudd tiinatul xabal léegi nag waa jahannam bu ñuy lakk suñu maree naan ba yuuxu ne mar nañu naan may leen ñaan tiinatul xabal boobu lan leen ñu dox xamiman wa ghassaqa ghassaq bobu ca la ñuy tank bu ñu ko tanké nak jox la yow mi lak te lak gi metti tang nga bëgg naan ñu xellil la nga wara naam neena bo timé pot bi mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam moy wax neena na timé pot bi bëgg naan bëtt yi day ku dugg ci lamiñ wi ñor xom kanam gi ñor xom borom bi ne yashwil wujuh ndox moomu day saaf xar kanam bi sa sharab ndaw naan gu bon wasaat murtafaqa bon na ku dëppoog jahannama yashwil wujuh bi sa sharab wasaat murtafaqa yàlla nañ ci yàlla musal foofu ñan ñoo fa nekk mooy ña doon njaaloo ci xale yu jigéen yi ña doon ci xale yu góor yi ña nga xam ne dañu doon ut bës fu ñu toll ña nga xam ne dañoo wuti woon carte njaaloo ña nga xam ne dañoo wuti woon carte hôtel ña nga xam ne dañoo wuti woon ay carte di wane ne ñoom ay jigéenu bës lañu ñoom taar la ñuy dox du nu sëy léeg-léeg nga gis jigéen ju taaru boo xam ni pour moom yaramam mooy marchandise am solo gi muy solo mooy marchandise am moom daal nekkewu fi lu dul solu ba rafet yore otoom nekk ci ay émission am ak i caaxaanam yeneen góor yi borom alali caaxaankat yi ñoo koy soxla fu ñu ko soxlaa nag xëy na séq ak moom la ñuy séq ñoo xam wal yaadu billah yàlla nañ ci yàlla musal waaye képp koo xam ne daa nga njaaloo ba mu nekk ci yow virus daa nga njaaloo mu nekk ci yow métier moo xam góor moo xam jigéen wal iyaadu billah yàlla nanu yàlla musal ñooñu foofu lañ leen di dugal dañuy xëwu nag di yuuxoo di jooy moom la yonent bi tuddee daw daw bu ñu jékkee safara si na jëppét ci suuf jaar ci seen tànk yi dugg ci seen pëy yi lakk seen mbàq yi ba butit yi wadd génn ci seen gémmiñ yi rek ñu yuuxoo daw daw bu ñu yuuxoo xëm tëdd borom bi dekkalaat leen kullama nadijat juluuduhum baddalnaahum juluudan gayraha borom bi nee na saa bu yaram bi ñoree bu safara bi ne cay ci pëyam ci saj moom ku góor ki wala ku jigéen ki biir bi day lakk mbàq lakk tuuru bu tuuroo mu ne bàpp daanu bu daanoo mel ni ku dee borom bi ne dee amul summa laa su ko defee nag mu xëm lu bu xamee borom bi ne nañu ko joxaat beneen yaram bu beesaat mu jëlaat beneen dose waliyaadu billah kullama nadijat juluduhum baddalnaahum juludan gayraha borom bi ne na saabu yaram bi ñoree ba xëm ñu changer leen beneen yaram nga ñëwati am na département boo xam ni lekkkatu riba yi ñoo fay dem lekkkatu katuri yi ci banque yi lekkkatu riba yi ci microfinance yi lekkkatu riba yi ci leble yi ak jëli yi lekk riba yi nga xam ni alal moom xooluñ ci dara nu ñu amee baax na ndax nit ki lekk alalam borom bi nee na yaa ayyuha alladina amanu laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil ay yéen ñi gëm yàlla seen alal bu leen ko lekk seen diggante ci ay neen ñooñee jël alal nag duñ ci joxe الذين يكنزون الذهب والفضة نيونيت أمنا نمبغل مولن دخار مبغل مولن دخار موي لك كتربائي سين بيري داي نغاند بطول ني اتاز ولياد بالله لالي رك سي ادنا غيس كو بيرم ري با بوكو خول دو خام نو ديف غور بو بيرم ري ولا جيجين بو بيرم ري غا ديكو خول دو خام دالاي ديرانجي نيوني نك لك تري باي نون لاني مل بروم بي alladina yaakuluuna alriba laa yaquumuuna illa kama yaquumu alladi yataxabatuhu alcheytaanu min almas borom bi nee na ñiy lekk riba du ñu mën a jóg suñu jógee daanuwaat jógaat daanuwaat ñu ne yàlla ñooñu nan la ñuy mel mu ne day mel ni kuy daanu gàngri su ngeen xamul gàngri mooy kuy daanu rab su ngeen xamul rab mooy kuy daanu mbir filli su ngeen xamul mbir filli mooy koo xamante ne dafa mel ni ku amee épilepsie daanu di kat kati lekkat riba yi noonu la ñu mel ku ko mës a lekk ma ne yàlla nañu yàlla musal tey bu ngeen xoolee suñu haut fonctionnaire yi su ngeen xoolee suñu milliardaire yi su ngeen xoolee suñu grand commerçant yi ñoom ñëpp système riba bancaire la ñuy jëfandikoo loolu nag maa ngi leen di waaw ci yaanu yàlla di leen fàttali ni alal bii nga am ba nekk grand commerçant ba am sa grande surface di jaay commerce gi di dox ngay dugal ak génn di jël ay bor muy am intérêt ragal ci yàlla bis a ngi ñëw bis boo ci deewee borom bi nee na boo duggee jahannam doo mën a jóg yàlla nee na ñi doon lekk riba du ñu mën a jóg dañuy daanu di bëppi bëpp yi laa na illa kama yaqumu alladi yataxabatu sheytaanu min al mass mel ni rek kuy daanu ay gàngri xam nga ko àttanul sa biir doo mën a jóg ñooñu loolu moo leen di xaar léeg-léeg seen làmmiñ yi génn laxas leen am na beneen département boo xamante ni département jëwkat yi la ak borom làmmiñ yu rëy yi ñooñu dañ leen di jox ña ñu doon jëw ñu leen di lekk noonu lañ leen di defal jahannam ñu nekk fa seen bëñ yi gudd làmmiñ yi gudd ñuy sàqami seen bopp lan moo tax ay jëwkat lañu woon yàlla nañ ci yàlla musal moo tax borom bi taala wa tabaarak di ñu tere jëw wala yaghtab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtumuh borom bi nee na waay waay bu kenn jëw sa morom xanaa da ngaa bëgg sa morom dee nga di ko lekk te loolu bugguloo ko kon moytu lu mel noonu am na département boo xam ni naankatu sàngara yi ñoo fay jëm sàngara yi àdduna mii ku ko naan doo ko naan ca àllaaxira ajjana am na sàngara waaye nag sàngara boobu du màndiloo anhaarun min xamrin la borom bi wax kon waa àjjana am nañu sàngara sàngara boo xamante ne bu ñu ko naanee du ñu màndi duñu ñu ñàkk seen xel ki doon naan fii sàngara nag nga xam ni caaxaan lay def moom it la koy xaar mooy waxtu wu nekk day am ndox mu ñu koy jox mu koy naan saa bu ko naanee rek biir bi ne fàcc loolu mooy illa hamima ndox mu tàng lay naan wal iyaadu billah am na département boo xam ni bu doy waar la ndax ña fa ëpp ay jigéen lañuy doon ca safara département jigéen ñi am na fa jigéen ñoo xam ni dañoo buddi seeni kawar xëcc ko ba mu gudd sampal leen poto poto bi am jàppukaay ñu jël seen kawar laxas ko ci poto bi yaram bi yoore takkuñu la buum mais karaw gi lañu buddi takkee la ko ñooñu mooy ñan mooy jigéen ñi doon greffage jigéen ñi doon meesu jigéen ñi doon def bopp neen jigéen ñi nga xam ne dañ doon def tatouage jigéen ñi nga xam ne dañ doon buddi seeni bëñ di ko defal ay sacré la jigéen ñi nga xamante ni seeni yaram seeni ween lépp ci biti jamono bii ñu toll jigéen ñi ku ci sol yére ñaari weenam ne bàcc ci biti loolu la ñuy def bës jumbax ba ni bàcc ci biti loolu lay def bës ñooñu nag noonu lañ leen laxase bi ñu leen laxasee noonu safara wi di dugg ci seen pays di génn ci seen pays lan moo tax ñooñu ñu leen di mbugalee noonu daawuñu muuru ci biir góor ñi ñoom daanaka ay jigéen góor lañ jigéen ñoo xam ne futteeku rekk loolu nag sunu kilifa diine yi am nañ ci rôle bu mag bu ñu waroon a liggéey donte liggéeyuñ ko waaye bu ñu leen ko fàttalee mu wéy mooy bu ñu leen fàttali woon ne bu kilifa yi diine yi doon wax fu ñu toll naan jigéen daa war a muuru ñoom kilifa diine yépp a jàng laxdari laxdari lu mu wax almaratu kulluha awra maa ada wajhaha wa kaffayha borom laxdari nee na jigéen léppam awra la ba mu def xar kanam ak ñaari ténqam waaye ñoom sëriñ si tey waxuma ñépp de ñu bëri ci ñoom ngay fekk seen soxna yi xeesal seen soxna yi ñoom ñooy jël karaw yi nga xamante ni cheveux naturel la seen soxna yi ñooy solu sol gu yées sol gu doy waar doomu sëriñ si ñoo koy def jàpp ne seen maam baax na ñoom dañoo war a mel nu leen neex ñooñu ku ci dee te tuuboo la xaar mooy lii ma wax ne am na ci département jigéen ñi jigéen ñoo xamante ni bopp mbaam xuux lañuy yore yaramu mbaam sëf bopp mbaam xuux yaramu mbaam sëf jigéen ñooñu mooy jigéen ñi nga xam ni daawuñu julli di yàq seen lalu jëkkër daawuñu julli gaa waaye yemu ci seen jëkkër bu leen soxlaa dañuy bañ ñooñu loolu moo leen di xaar am na fa jigéen ñoo xam ni seen ween lañu buddi bucc ñaari ween yi ba mu nekk buum ñu laxas koog ween yi ween yi takk ko mi ngi mel ni ñu jël nit teg ko fi laxas ko buum ba dootul mën a buute waaye ween yi la ñuy rocc laxasee ko ko ñooñu lan moo leen indil loolu mooy jigéen ñi nga xam ne dañ daan sëy te duñu sangu farata wal iyaadu billah am na fa département boo xamante ni sàcckat yi ñoom ñoo fay nekk am département boo xam ni agresseurs yi ñoo fay nekk kenn ku ci nekk jël wàllam moo tax borom bi ne moom daal mbir mi jahannama bi ñu leen doon wax mi ngi nii haadihi lii jahannamu mooy jahannam allati ba nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tuuwaduuna di leen ko dikk ci làmmiñu yonent yi ci làmmiñu waaraatekat yi ci làmmiñu waxtaankat yi waxtu wu nekk ñu wax leen ko waaye dangeen doon bañ comme nag léegi ñëw ngeen te dellu ginnaaw amul borom bi ne islawha jaaroo leen jahannama dugg leen bi ma kuntum ca sababu la ngeen nekkoon takfuruuna di weddi ko dangeen ngeen weddi woon suñu leen waxee ngeen bañ ngeen nekk ci leen neex eh dama nga sangu ji yow acca jógal ngay nuroog loolu sangu jil gaawal nee na islawha jaaroo leen jahannama al yawma tey bi ma kuntum te la ngeen nekkoon takfuruuna di weddi ko waaye tey jahannama bii yàllaay wax ba léegi de ñu ne ko ah lan la mu ne alyawma tey ñu ne ko waaw yàlla tey mu ne naxtim danañu tëj danañu fermeture danañu ñaw danañu marmaral ala afwaahihim seen gémmiñ ya bu ñu dekkee gémmiñ du am wala boog gémmiñ yi day mel ni lu ñu ñaw wala day mel ni lu ñu fermeture wala ñu dugal ci ngom bu tëj ko mooy naxtimu ala afwaayihim borom bi nee na danañu encastré gémmiñ yi ñu ne waaw yàlla bu ñu encastré gémmiñ yi lan mooy xew kon lan mooy wax yàlla ne watukallimuna tukallimuna dana wax ak ñun aydihim loxo ya mooy wax fii ci àdduna sa loxo bu waxoon nit ñi daw ndax li ñu xam ci mbaax muy wax mooy sa gémmiñ waaye nga ñëw àllaaxira contraire bi am sa gémmiñ du wax sa loxo mooy wax loxo bi moo naan yàlla maa sàccoon maa dóoroon maa raayoon maa jëloon maa defoon wa tashhadu arjuluhum tànk yi di ko seede ne yàlla loxo yi ba mu doon sàcc fa mu doon sàccee man tànk yi maa doxoon yóbbu ko fa bi ma kaanu ca la ñu nekkoon yagsibuuna def ko nit ki nag bu toogee ba ay cëram di ko seedeel di ko waxal mooy du man rëcc lan lay mujj wax li ma shahidtum alayna lan moo tax ngeen di ñu seedeel qaalu ñu ne ko antaqana allahu alladi antaqa kulla shay kii waxloo lépp moo ñu waxloo borom bi ne walaw nasha suñu neexoon la pamasna kon danañu mëdd marmaral ala ayunim seen bët ya yàlla nee na su ma neexoon ni ma tëjee làmmiñ yi ba du wax ma tëjee ko bët yi kon nag fastabiqu njëkkante leen af siraata yoon wu jub bi comme dégg ngeen ko te ñëwagul yàlla nee na njëkkante leen yéen ñiy dégg loolu ñuy wax njëkkante leen jaamu ji yàlla moytu caaxaan ndax bisa ngi ñëw kenn du mën a rëcc kon mu ne fastabiqu njëkkante leen af siraata yoon wi ngir lan fa anna ana fan yubsirun la dee fi gisal leen borom bi ne walaw nasha suñu neexoon ba tey la masax naahum danañ leen marmaral faar leen ala makaanatihim ci seen place ya yàlla nee na su ko neexoon rek mu faar leen ca seen place ya dootuñ fa nekk dootuñ existeeti dara dootul am fa ñu taxawoon bay mooy yàlla yàlla nee na su ma neexoon du am bi nga demee ca hôtel ba nekk ak xale bu jigéen bi su neexoon yàlla mu soppi la rek nga faar jóge fa yaag ndaw si yëpp ngeen nekk leneen bi nga tukkee di mooy su ko neexoon mu def ko bi nga toogee di bàkkaar su ko neexoon mu def ko walaw nashaa'u la masaxnaahum ala makaanatihim borom bi nee na te su ma leen ko defoon nag famastataaxu duñu mën mudiyan moo xam dem wala yarjuun duñu delsi su ma leen marmaralee kenn du dem kenn du delsi maanaam doo mën va doo mën vient allahu akbar yàlla nee na kon ma dëj leen su ma neexoon ma dëj leen moo tax kii bàkkaar bu amul xel day mel ni dof ndax sa xel bu xalaatoon li ngay def xam nga ni moomoo ko yàlla su ko neexoon bi ngay mooy yàlla mu rey la foofu bu la fa reyee nooy def doo dekki da ngay am problème mais yàlla seetaan la nga bàkkaar nga war a tiit dellu ginnaaw nga continué waat nga war a replier tuub nga defaat sax ci mu nar a dem ba nekk virus ci yow ba léegi saa boo toogee sa xel boo yore xaalis rek sa xel xalaat non naa dem naa dem ponti wala naa dem feneen quoi nga mën a ñëw taxaw di wax ak jigéen di waxaale mu naan la temps nga may fay nga naan ko temps laa la mën a fay ci lan ci mooy yàlla non amu leen xel wallahi da ngeen a gàtt xel jigéen ji ku gàtt xel la mais góor gi ku gàtt xel la moo tax borom bi ne fa maftataau dunu mën mudiyan di dem wala yerdiun du caagen ñu del si yàlla leen mën naa leen marmaral ba ñu mel ni ay chose dara dootu fi nekk mu ñëw nag ne borom bi ne wa man nuhammirhu képp ku ñu guddal saw fan nu nakkisu danañ ko jatt fil xalq ci mbind yàlla nee na ku am ay at juróom benn fukk juróom ñaar fukk juróom ñett fukk rek sa yaram changé na la nga mënoon dootoo ko mën na yaram ba meloon dootu ko mel si didi commencé naa yax yi commencé metti tànk yi commencé metti bët yi commencé lëndëm nopp yi commencé tëx bakkan yi commencé siit dara dara lépp lépp day désorganisé wu lépp lépp day changé ndeysaan lépp day changé allahu akbar wa man nu ammiru ne nu nakkisu danañ ko jett fil xalq ci mbind borom bi nekkoon afala yaaqiloon teewoon ngeen am xel comme ku dund bu yàggee nga màgget tee ngeen am xel nekk nga fi ndaw nekk jeune nekk paa jóge ci paa nekk màgget boo jóge ci màgget te daw ngay dellusiwaat kon afala yaqiluun tee woon ñu am xel a ah, war na ñu am xel de borom bi nag ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu wa maa allamnaahu muhammad mii xamaluma ko shi'ra way du waykat du musicien du taalifkat du bindkat yooyu yonent bi du ko def te it nag wa maa yambagi yellul lahu ñeel ko yonent bi nag dëgg-dëgg ëpp na muy nekk waykat xam naa ne bu yonent bi doon waykat Sénégal mooy numéro p numéro un ci ñi koy kii comme ñun foog nañ ni way yonent bi rek rek mooy jaamu yàlla da ngay dégg sax ñu man léegi laa dégg ñuy ay baatu les nabiens quoi man xaw ma baat boobu nabien non Sénégal ñoo yab diine yab yàlla yab islaam da ngay dégg ñu ne kii non ma suis nabien quoi nabien ndek <laughs> mooy koo xam day toog te ñi lay wax naan nabien kat yàlla xam na ni déedéet ay muuduyen lañu ibrahim de yonent bi benn way lañ koy waye rek tàggkat yonent bi laa waaye boo fa jógee léegi Mohamed Diouf ngay way Jibril Cheikh sëriñ Maodo nangam rek ñoon nga yuuxu ñu naan ñooy waaja léegi boo jógee na nabien yow koy boo ñemee buñ ne nabien yow neel man Jibril yee laa bokk waaw wala nga man Jean Paul yee mais tiaxan lañu ñu tàmm dañoo tàmm fo mais nabien lée ngeen dégg festival yaa salaam ay nabien loolu tiaxan la yàlla nee na xamalul yonent bi way yellul mu nekk kat in huwa déet lii mu leen di waxal ni illa zikrun ndare muy am waar wa qur'anun ak alquran mubinun bi biir allahu akbar muhammad li mu wax ni du way de am zikr la am waar la alquran bu bir la ñu ne ko waaw borom bi alquran lan mooy rôlam lan mooy liggéeyam mu ne dafa ñëw li yunzira ngir mu waar man kaana xayyan kuy dund alquran ñi dund ko moom da ñi dee bokkuñ ci Sénégal nag ku dee rek ñu préparé la kaamil jàngal leen ko kaamil wala du tàlli fekk paa yi jàng kaamil ñoo dul tàlli parce que da nga leen di fay pour ñu jàng boo leen fay du ñu am dépense moo tax ñu naan la jàngal ko kaamil balaa moom ñeent fukki fan su ko mooy du tàlli fekk ñoom ñoo tàlli mais jàngal ko kaamil amul fenn ci diine islam bi xamuñu ko dañ koy caaxaane ku saa boo ko waxee nag waxkat yépp jóg ndax ñi koy def kenn du am jàmm. ñëpp a jóg commencé waaw moom day kii nangam nangam nangam déedéet alxuraan dafa ñëw li yunzira ngir mu xuppoo man kana ka nga xamne nek na hayyan di aji dundu demb la deg ben affaire bu ma jaaxal ci ben plateau ben way dal mi ngi tok aaya bu nek mu ne 4444 nga koy bind ma da ah, yo nar nga bind ba dede de 4444 4444 ma ne ndawi 4 xanaa mooy 4444 bokk ma ne dama to bañona ah, le 4 avril 1444 bok la bëggona adat bok aaye bu ne mën a nga def ko te li ma gën a jaaxal ñi koy posé question ñoo ko ëpp xaalis moom mais moom nee na moom day day day créer wërsëg quoi boo bëggee yëkkatiku boo bëggee tur boo bëggee nangam 4444 fan ngeen jëlee lim bi fan lañu ñu ko jëlee duñu la ko wax mën nañoo mer nag waaye ñu baal ma diine nag du loolu diine nekkul ay 5555 ak douze mille sept cent soixante sept ak quatorze mille quatre cent quarante quatre ak yooyu ay caaxaan la yahudi yi ñoo ko daan def ñoo ñu ko bàyyee ñun julli ñu foog ni ci diine bi la bokk da ngay jël sa benn aaya rek commencé limal quatre mille quatre cent quarante quatre nga bind hasbunallahu wa ni'mal wakiil quatre mille quatre cent quarante quatre yow boo naree def loolu kay jaru ko jëla kaamil bi nga xooj ko rek nga sangoo wala nga jël ko nga takk dañ ñuy dofloo dañ ñuy nax loolu bu amoon yonent bi jàngale ko sahaaba yi dund nañ ba dee xamuñu xaatim musuñoo xaatim musuñoo adab amul ci sahaaba yi ku mësa utiliser loolu ku la wax ni am na day fen wallahi ladi la ilaha ghayruhu du la indil benn mbir bu wer nañ ne la sahaaba sàngam doon na xaatim wallahi ladi la ilaha ghayruhu ku la ko waxal day kàcci ñu bal ma ci wax ji ku la ko waxal day fen ñépp nag jóg bëgg a mer commencé yuuxuwaat nangam mais ku la ko waxal waxul dëgg alquran daal li ko yëkkati li yunzira man kaana hayyan yow miy dund jàng ko balaa ngay bind 4444 di ko takk kay demal nga jàng téere bi yow jàngaloo téere bi nekk directeur société jàngaloo alquran xamoo ci dara ñu ne la bind ko takk ko da nga tekki fooy tekkee tekki ajuwul foofu ñun yàlla indi wuñu pour ñu ne wërsëg moo ñu fi taaj daf ñu indi pour ñu jaamu ko wërsëg yàllaa ko gàddul boppam yàlla moo ko gàddul boppam borom bi nee na wa ma min dabbatin fi l illa ala allahi rizquha kon alquran dafa ñëw li yunzira man kaana xayyan dafa ñëw ngir di waar ñiy dund te it nag wa yaxiqa nee na mu daal di ay lan mooy ay mu nekk xujja nekk lay kan lay nekk lay alal kaafirina ci yéefar yi ak jullit ñi sàggan yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ko ñëpp incha allah ba dar si biir ñëw salaamualeykum wa rahmatullahi wa